bonheur. maa ngi lay euh, nuyu bu baax euh, Soxna Astou c'est toujours un plaisir euh, bokk ak yow plateau. Mm-hmm. nuyu bu baax ñu daal di leeral loolu doog a jàll si waxtaan bi. waaw xam nga xam nga xam nga encore une fois damay faral di wax ni man j'étais le directeur de publication de de Tribune. de Tribune donc su may démissionné damay démissionné si li nga xam ne mooy këru yëg-yëgaay boobu du Tribune parce que nekkuma woon mm-hmm. agent wu Sen TV wala wala Zik FM bien vrai que si cour bi laa nekkoon donc démissionné naa tribune euh, lancé man ak Momar Diong journal bi nga xam ne mooy le journal Momar euh, nekk ci directeur de la publication ma nekk ci directeur de la rédaction et rédacteur en euh, chef si këru yëglekaay boobu waaye boo gisee léeg-léeg may feeñ si télé bi te que ñoom dañ ma ceebum pour le moment comme consultant rek mm. mën a jàppale tuuti si li nga xam ne mooy liggéey bi présentation wu l' essentiel bi itam euh, Evelyne Mandiouba fan yi yaram bi moo jagati woon mm. mu ñaanal mu ñaan ma ma jàppale ko def naa ni yàqul dara le temps muy ñëw rek euh, parce que l' moom sa empreinte mi ngi foofu ba léegi effectivement mais euh, pour le consultant laa fa rek mais nekkatuma employé des médias Euh, comme euh, nu ko ñenn ñi di xalaatee maa ngi ci sama euh, këru yëglekaay bi di bébé bi di ci liggéey ak mama di ñaan yàlla. Mhm. vraiment mu daal di taxaw nekk journal bu ñu ràññee fii nga xam mooy paysage médiatique du Sénégal. mais mais lan moo motivé ce ce départ de de tribune. en fait du dara lu dama mënul liggéey yoon mayuma ko moral éthique ma mayuma ko pour ma mën a liggéey sur deux supports identiques. conflit d'intérêt day daal di dugg parce que mënuma mënuma dafa mel ni yow nga nekk 2S <laughs> nekk en même temps Sen TV ce n'est pas possible. Mm. donc euh, benn benn support identique mënul nekk parce que conflit d'intérêt la euh, quotidien métti na métti boo xam ne mënoo njorandoo ñaari quotidien def naa ni itam léeg-léeg bu fa nekkoon su ma ko doon jéem a def sax suba buñ ma jàppee maay maay maay ki nga xam maa tooñ. te itam léeg mun nga gis euh, bii am information bu gën bu gën a dëgër bële ñu ne bii ngay privilégié donc moo tax yoon da ko sama départ mooy li nga xam ne mooy samp dara loo xam ne amaana ñoo ko moom suñu bopp jëm ko doxal. parce que en fait votre départ dafa coïncider un peu ak cette vague de de démission mën naa ko tuddee noonu mm-hmm. de de mm-hmm. d'employés gis nañ le départ da Ahmed Aïdara y a également mm-hmm. Pa Assane yow aussi nga topp si euh, et donc on pensait que ni dafa am benn liaison boo xamante ni euh, départ yooyu noonu euh, am nañ ko. en ce qui me concerne j'ai déposé mon préavis. Euh... daanaka au mois de au mois de février. Euh, hmm. comme man statut bi ma yor daf euh, dañ ma dañ ma ne amaana mun nañ la mun nga def un mois comme mun nga def trois mois bu dee cadre nga yoo xam nga ci dara. Hmm. législation bi euh, di nga def trois mois. donc man déposé woon naa sama préavis waaye préavis bu muy yegg dafa na préavis donc dafa dafa dafa. dafa tombé dafa tombé naa ne ku si nekk am na raison personnelle bi tax Ahmed. expliqué na moom lu tax Pa Assane tam wax na li tax Euh, man sama wàll bopp wax naa li tax waaye nag man déposé naa sama préavis pratiquement trois mois euh, avant li nga xam ne moo di am waaye nag bu muy euh, affaire u Assane bi ak Ahmed di demale faf nag mu tombé ba nga xam ne préavis bi day kii léegi nag gars yi nag sa mboxloo ci <laughs> def corrélation boobu mm. en réalité ku si nekk rek am na raison personnelle mais les motivations ne sont pas les mêmes mais am nga ci appréciation sur le cas de, du départ de Ahmed Aïdara donc qui moom mën naa wax ni ci ci ci ci euh, des médias voilà la bokk mm-hmm. bokk na ci symbole yi nga xamante ni euh, mënuñu ko fa euh, bañ a ràññee foofu la ci groupe bi mm-hmm. tey bu jëlee lépp loo xamante ni moom la fa doon liggéey daal di ko fay bàyyi ngir samp leneen yow ban gis-gis nga am ci loolu mais damay jàpp ni Ameth effectivement dafa bokk si ADN des médias parce que man dama ñëw fekk ko fa dama yàgg nekk si yeneen këru yëg nekaay daan ko déglu daan ko seetaan comme à l'image de plusieurs Sénégalais tey ji nii gàllankoor am na amaana ñàkk déggoo am na amaana ba nga xam ni génn na te samp na fi boppam. samp yëfi boppam euh, ànd si ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bokkoon liggéey bi ku fi mel ni Ba Assane Seck ñu ngi def liggéey boo am solo fii nga xam ne moo di 2A TV mais jàpp ne rek c'est le c'est le cours de la vie benn instant nit euh, di nga ànd waaye tam nit benn instant di nga tàggalikoo mais lépp solo rek nañuy fexe ba nga xam ni euh, maanaam sans aucune rancune en fait ba nga xam ni ku si nekk relation yi nga amal ak nit ki daa ko mën a wéyal mais lu ma si mën a wax rek mooy. toll nañu jamono joo xam ne. Mm. nit nag bu sampee boppam def naa dañ ko war a jàppale dañ ko war a encourager parce que l' entrepreneuriat on en parle mais Sénégal saay boo entreprendre amaana dafa am neneen ñu koy gisee dafa am neneen ñu koy interpréter te itam ñun dañoo nekk si société boo xam ne dafa difficile pour expliquer ba nit ki comprendre mais li am solo rek mooy amet nekkoon na fa euh, euh, nekk na si leen amaana am na ñoo xam ne ñu ngi si biir kër ga wala beneen kër ñoom itam daañu mën a mës a génn parce que am na leneen lu ñu gis wala boog jàpp nañu gis nañu leneen lu gën wa ilaa am nañu projet boo xam ne personnel la projet bu ñu bokkal ay nit pour mën a teg dara loo xam ne amaana daañu si mën a daañu ko yaakaar ni dañ si gën a mën a mais euh, euh, euh, ñuy dugg si sujet parce que en tout cas lu important la ñu toog leeral un peu parce que gis nañ les circonstances de son de son départ je vais pas trop personnaliser mm-hmm. ce sujet mais quand je parle de manière générale ak li nga xamante souvent moom mooy motiver yenn départ de journalistes jóge ci yenn boîte di dem feneen wala créer leur propre euh, boîte euh, tey est-ce que du ñu remettre en question wala boo est-ce que ça peut expliquer li nga xam ne moom moo di liberté journaliste bi au sein de de la boîte. waaw bo du ma ne euh, dañoo ñàkk liberté ah si biir si biir kër gi parce que Ahmed am na motivation boo xam ne yow xamaa na yëg nga ko suivre nga un peu les événements liés à la revue de presse ak li si CNRA waxoon ak moom position bi si amoon. ak direction générale bi position bi nga xam ne amoon amoon nañ ko. defe naa ni euh, yooyu yëpp euh, nu mu xewee ak nu mu xewee parce que ñëpp seetaan nañ ko seetaan nañ ko télé damay jàpp ne rek effectivement am na koo xam ne amaana dem na parce que moom jàpp na ni euh, xëy na restreindre nañu liberté mm. dafa frustré am na keneen koo xam ne dem na parce que moom itam dafa xalaat teg projet personnel am mais dans dans dans la chose la plus essentielle mooy euh, ku si nekk rek wala boog euh, ñay liggéeyee moo xam fii la moo xam feneen la moo xam foofu toujours nañuy def bloc euh, pour mën a défendre seen ay intérêt parce que liggéeyu journaliste moom li mu gën a àndal mooy indépendance li mu gën a àndal moo di liberté ban nañ ko baw dañuy faral di wax ni une rédaction c'est un espace de liberté et espace de liberté boobu nag mooy tax dafay firi journaliste ba nga xam ne dina mën a def liggéeyam si tey ji mm. waaye assez souvent xëy na ñeneen ñi dañ ko gisee ne parce que c'est dina compliqué xëy na parce que que diriger peut-être que il est dans le champ de la politique donc xëy na euh, léeg-léeg mu am peut-être ay bis bi euh, par rapport au niveau de compréhension des uns et des autres yi nga xam ne sore nañu kër gi ils sont de loin di regarder di xool à leur niveau ils peuvent faire des interprétations mais su may wax rek man sama sama sama jëmmi bopp en réalité euh, je n'étais euh, je n'étais pas contraint de faire quoi que ce soit boo xam ne àndul ak àndul ak man sama gis-gis en tant que journaliste. Mm. àndul ak li nga xam moo di éthique ak déontologie. que tam am naa naataango yu tudd Astou Dione yoo xam ne dinañ ma xool amaana bu ma doon am neneen ñu ma doon defee ñu koy gis di ko liir xëy na daañu ma jéppi. Eh, te dinañ ma gisee neneen ba nga xam ne relation professionnelle ak relation amicale bu ñu war a mën a am sax dañ ko moytu parce que on pointé du doigt tout simplement. D'accord. Mais tey dañuy gis de plus en plus des des journalistes qui s'intéressent euh, à la politique on a vu le cas de de Ahmed Aïdara. Mm-hmm. gis nañ fi euh, Pape Djibril Fall également comment comprendre ce, ce, ce phénomène-là <laughs> waaw c'est vrai que c'est assez naturel waaw voilà. c'est vrai que ce n'est pas la première fois je, le rappelle parce que itam boo koy fàttali damay jàpp ni am na ay doyen yoo xam ne ñoo ñoo ubbi la voie ku si mel ni Abdou Latif Coulibaly et par rapport ak bi muy nekk candidat à la candidature en perspective la présidence de 2012 sur la bannière de Benno Alternative après l'éclatement de Benno Siggil Sénégal nga xam ne journaliste la woon jege woon président Macky Sall ba tax tey jii mu dugg li nga xam ne moo di langue politique. Mm. bu fàtte tam suñu waaye Hamidou Kassé bi nga xam ne moo nekkoon directeur général lu Soleil euh, Racine Talla bi nga xam ne <laughs> suñu doyen la jamono ji mi ngi APR carrément. donc dañuy jàpp ni euh, virus bi du du léegi lay doog a dugg journaliste yi yàgg na nekk si journaliste yi tey jii nii am na nag vague de journaliste boo xam ne demoon nañu si élection départementale et municipale yi am nañu si fal ku si mel ne Ahmed Aïdara wa ilaa Amadou Ba bi nga xam mooy directeur de publication wu nekk maire de missira ak yeneen ñoo xam ne Sambou Biagui ñeneen ñoo xam ne dem nañu. waaye ba si Thierno Amadou. aussi voilà ñoo xam ne Thierno Amadou si bu bu RTS. wala Cheikh Amadou Bamba Gueye bu RTS wala Nafisatou euh, Diouf bu bu RTS ñoom ñëpp dugg nañu si li nga xam mooy langue politique bi donc dañuy fàtte ñooñu parce que xëy na service public la ñu nekk waaye damay jàpp ni li ma benn jeune woo wax rek ne ma woo ma ne ma mais grand laay ma ne ko waaw mu ne ma yéen journaliste da ngeen war a da war a song politique bi <laughs> xam ma ne ko nag waaw baax na ñenn ñuy dugg waaye ñëpp buñ duggee du baax mais dans tous les cas l'un dans l'autre ku si nekk euh, na dem waaye tamit boo xasee ba dugg parce que man mooy sama position ferme boo xasee ba dugg nag jëlal jaaj jaaj yi delloo ko ñi nga xam ne journaliste yi ñun tam ñu lay xoolee comme ki nga xam ne ak acteur politique nga ñu war na mën a traité comme acteur politique au moment où yow bi nga nekkee journaliste ñu ngi doon traité acteur politique bi ñu ngi ko doon xoolee ñun tam dañuy wëlbatu ko am beneen gis-gis boo xam ne dañuy eh, eh, eh, interpréter dañuy analyser dañuy commenter sa discours sa démarche say position say positionnement ba nga xam ne effectivement dañuy jàpp ni c'est un confrère une consoeur ñun ñu ngi koy jàppale waaye moralement peut-être à un autre niveau euh, euh, euh, peut-être à un niveau engagement par rapport à un autre niveau conseil par rapport à un autre niveau am na loo loo ak moom mais lorsqu'il s'agit de devenir le journaliste que que que nous sommes euh, effectivement foofu nag dañuy am yeneen position des positions tranchées parce que amul euh, xaj ak seen nous ferons notre notre métier de tous les jours mm-hmm. comme nous le faisons pratiquement tous les jours et véritablement de la manière la plus professionnelle euh, que ce soit d'accord merci en tout cas ci éclaircissement yi parce que c'est c'est c'est important ak li fi jot a xew lépp tey nag xam nañ ni euh, mbirum politique moom mooy gën a fës ci su lu ñu war a waxtaanee du ñàkk sax ñu toftal ci beneen point mais gis nañ démb parrainage yi ak euh, dépôt liste yi clôture bi et tout ça là on commence à voir que ni ñenn ñi ñi ngi commencé di am problème euh, ci wàllum yenn irrégularité yu ñu gis ci ci seen liste yi est-ce que loo xaaroon la yow en tant que quelqu'un qui analyse wala yaa ngi gis di seetlu euh, langue politique bi nu muy demee est-ce que lu surtout nag le cas wallu wàllu tey buñ fi taxawee est-ce que loo xaaroon la wala loo yaakaaroon ni lu mën a am la pour une si grande coalition. waaw en fait euh, man euh, recalage wu wàllu en réalité bett na ma en tant mm-hmm. qu'observateur parce que damay jàpp ni entité bi ko jiite di parti démocratique sénégalais bi nga xam ni mi ngi bokk si ay jongante depuis atum 1978 sa création par maître Abdoulaye Wade li mu am expérience ba pare nekk si bopp réew mi pendant 12 ans euh, nekk tête de pont si parti yi nga xam ne ñoo gën a yàgg Sénégal euh, ak ak ak jaar-jaar bi mu am euh, lii nga xam ne moo di parrainage bi nga xam ne defoon nañ ko en en 2019 si présidentielle bi jëloon Karim Wade daf ko candidat dañoo jaloon parrainage waaye Karim comme mënut nekk électeur mënut woon doon candidat xëy na loolu moo leen gàllankoor damay jàpp ni kon élection législative yi nga xam ne jàpp naa ni ñoom. waruñu mën a am jafe parce que c'est un parti implanté partout à travers le Sénégal ils ont des ils ont une, des fédérations dans l'ensemble des 14 régions euh, ils sont présents dans l'ensemble des 46 départements du Sénégal même ñoom ñu kale leen bien vrai que 4000 parrains la ñuy lañ leen laaj di d'ici 48 heures pour ñu mën ko euh, ñu mën ko joyanti. Mm. man en réalité bett na ma parce que on a vu des coalitions de moindre envergure avec des personnalités de moindre envergure de moindre d'expérience yoo xam ne jàll nañu facilement man comprendre ma lu tax wallu par rapport ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci système électoral u parti démocratique sénégalais wu am xam-xam bi am jaar-jaar bi te ñoom mënuñu déceler erreur bi tax aujourd'hui ñu ñu recalé leen pour le mois euh, pour pour les 4000 parrains man en réalité bett na ma lool si li nga xam ne moo di parti boobu ak coalition mais loolu ci instant bi nga xam ne ñi ngi def benn alliance électorale mhm. lan la war a mën a indi comme conséquence si fois ñu ne euh, wàllu ne pourra plus euh, passer. waaw xam nga xam nga loolu sax ba dem si guddi rek am na ko ma ko doon laaj benn confrère maa ko naan xëy na su ma jógee sax il faut ma gën ko gëstu. Euh, code électoral bi foog ñu gën ko saytu déglu itam wala bokk jéem a jot ex ay